nabi waaw waaw mboolem li Seni fi wax Aksi seni i njariñ waaw ak seen i xéewal waaw ak seen i waaw mi ngi ci salaatul fatiha ah waaw fatiha beeg basmala beeg lépp mi ngi ci Salatul fatiha salaatul fatiha boroomam nee na ku ko wax benn yoon dem sawara bu bis penke na nga ko poñe waaw salaatul fatiha képp ku jàpp ba pare tari ko borom jéggal la say ci salaatul fatiha képp koo xamante ne nii saxal na ko ñetti yoon ñetti yoon heure bu jullee waaw wala sa ñetti yoon bis bu jot mm-hmm. suñu borom dimbali ko allahu akbar dana ko dimbali zahir dimbali ko baatin mm-hmm. benn salaatul fatiha laa la wax maanaam rek nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin lil fatih li ma uhliha wal xaatimi li ma sabaha ila siratika al wa ala alihi xaq xadrihi wax ko boo ko waxee ñetti yoon suñu borom dimbali benn yoon laa la wax alaaji pap par bis ben yon par bis. Mhm. do dem do dem do dem sawar boy day dem aljana fi ne même new binga bi nga xamante ne ñu ngi koy bëgg a ci biir bàmmeel nit ki taxaw tibb ci suufu suufu bàmmeel bi. suuf bi gas. tari ci ñetti salaatul faatiha daal di koy sotti ci biir bàmmeel bi ñu dugal ko maanaam kooku du gis lu ko naqari ci biir bàmmeel allahu akbar Manam góor yalla harif billahi bo xamante ne nii jaamu na yàlla junni at te salatul fatiha faatiha te waxul salaatul faatiha laa wax ci dundam. Mhm. yow mi nga xamante ne wax nga benn peru salaatul fatiha junni at boobu mu jaamu yàlla moog salaatu benn salaatu fatiha boobu ñooy tolloo. la ilaha illallah est-ce que mën nga ko mën nga ko firi ci wolof. alfatih li ma uxliqa mhm. mooy ki ubbi. li tëju woo li tëju. alxaatimi li ma sabax. mottali li manqué. naasiril xaq bil xaq. yàlla mi nga xam ne mooy aji dimbal. وبالحق انزلناه آه، آه، وبالحق وبالحق نزل دغ جي مو واتي موم القران موم غا خمني كاد لا خم سي بوروم بي سبحانه وتعالى لا جوغي صلاه الفاتحه كو وعلى اله حق قدره ومقداره مانام مانام درجه صلاه الفاتحه درجه بي الله بوركو ماك ني دون انسيستي سي حق قدره حق قدره وحق قدره مانام لما جا خم موكو واخي ادنا توكي ابنا في ني مانام دغي دغي دغي درجه فاتحه الله جي الله جي باب alaaji pap day kupp kapp kupp këpp da ngay dégg ñuy wax benn salaatul fatih mooy juróom benn téeméer mhm. ci beneen salaatu bu dul moom mais man jàng naa téere boo xam ne boo fa demee mhm. Mhm. benn salaatul fatiha six cent mille beneen salaatu la bu dul moom benn salaatul fatiha wo wecci na six cent mille salaatu bu dul moom allahu akbar waaye léegi kon nan la ñu mën a nekkee ci adduna nga xool Cheikh Ahmed Tidiane ni mu mel. ni mu mel ak sunu borom lim ko dimbalee. Mhm. lim ko yàqal ci ndabam. Mhm. est-ce que ngi dégg léegi yàq boobu mu ko yàqal ci ndabam moo tax.